jërëjëf mbokki réew mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV Serigne Axma Lo Ndaam la ñu seet si muy borom xam-xam boo xamante ni yaakaar naa ku ne dégg na waa Ndaam bu ñu nee ndam xel yëpp dem ci dàkku Ndaam bu ñu nee Ndaam xel dem ci li nga xamante ni mooy kaaraange ak gàllaaj gu wóor Serigne Axma nag daf ne ma woon weeru koor gi duma ci génn ah, tey ma woo ko mu ne ma ah, gis naa ne nit ñi ñi ngi sàgganee diine ñi ngi sàgganee lislaam kon nit ñi saa su nekk di wax ak ñoom jot na tey danañ ko bàyyi mu leeral lu bëree bëree bëri ci xam-xam ak diine euh, mais laata loolu tamit am na loo xamante ni jot na ci dëkk bi fan yi mbokk yi fan yi coowi awra tamit doy na waar te mu ngi yàq lu bëree bëree bari balaa boobu dañu bàyyi sëriñ bi mu nuyoog askan wi ñu soo a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan yi sëñ Axma ñoo ngi lay ziare. alhamdulilah alhamdulilahi taala waxdahu wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalina seydina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahabatihi ajmahin wa man tabiahum bi insaanin ila yawmi diin mbokki internet yi ñu leen di nuyuwaat beneen yoon di di ziar e, ci saxru ramadan bu mubaarak di ziar sëñ Medoune di ziar alaaj dégg ci weer yi mel na ne ba weer dara ba léegi ñuy doog a gisantewaat <coughs> waaye ñuy xam du woon dara rek da fekkoon ne koor gi moom dañ ci baaxoo yoo xam ñaar yi ñu ciy gàccoo mm-hmm. dañ dul am benn jot ndax day weer woo xam comme weeru promotion la. promotion nag bu ñu koy xibaar mooy suñu la ko misaal pour mu gàtt moo xam ko mooy soo jëndee 1000 francs am 5000. am 5000 boo jëndee 5000 am 15000. ñu xam ne loolu kon jaamu yàlla goo xam ne at mu nekk benn yoon nga ko ci am. léegi ndax ñun déwén danañu fekkaat loolu xamuñu ko. Mm-hmm. waaye comme di ren jii fekk nañu kooru ren gii ñu ne kon nañ ciy profité di jaamu yàlla. loolu moo tax ma dellusiwaat di soññaat li tax may soñña nag mooy. Mm-hmm. des fois nit ñi dangay xam da ngay dul xam ay jullit lañ. Mm-hmm. wala da dul xam ñoom lan lañ. Mm-hmm. ndax ñi ñu tuddee sax suñu mbokk catholique yi sax fonk nañ seen diine fonk seen diine goo xam ne bu seen koor gi ñëwoon tey ji mm-hmm. xale bi ci gën a ndaw sax nga gis ne day woor. ñun nag lay gis ponkal yoo xam dara du leen jot. koor jot ngay gis ñuy tappalaay koor te mosoo leen gis kuñ ne daa woor ba far jaare fa dee. da gis yoo xam dañoo mën a woor dara jotul leen. mais ñàkk jom dal leen ba duñu woor ma gis ko nag yu bëree baree ba te dañu mel dañoo dem ba seytaan dañoo moom ba loolu dañ ko def rek mais dañu mel dara nañ delluwaat suñu xel ci yàlla da xam ne àdduna bii du kër kenn xamul ndax kóoru déew ne la fekk fekk nekk ndaw bu mu la teree jaamu yàlla ndax da ngay yaakaar ne ndaw moom warut a dee te xool leen at mi li ci faatu ci ay nit ndaw ñi ëpp fopp bu leen woon téeméer ñoo ci gaañu 80 pour cent yëpp ay ndaw lañ ndaw ñooñu ku leen yeewoon seen biir bàmmeel yi ne lan ngeen gën a bëgg danañ xam ne jaamu yàlla rek moo wóor. ku leen waxoon lu ngeen gën a bëgg dañ naan ñu dellu si waat fii ci àdduna. donte benn julli la ñu julli ko fi. Mhm. kon maa ngi sàkkuwaat di soññaat sama bopp di leen soññ yéen jullit ñi. Mhm. ñu gën a dellu ci jaamu yàlla te xam ne weer wi ni weeru weeru promotion la. Mhm. weer wi day weeru njëggal di weeru gore ci safara. di weer woo xam ne nii lépp loo ci def ci lu baax rek yàlla suñu borom la koy fulal. bu fekkoon suñu dafa nekk ci juróom-ñaareelu asamaan. wax nañ ne bu koor jotee dafay ñëw ba ci première asmaan te yàlla moo waxoon ne man de soriwuma su ngeen ma wooyee ma wuy leen su ngeen ma ñaanee ma may leen. wa isaa saalaka ibaadi xanii fa inni xaribu ba yónni saa salaam yéefar yi dañ ko doon naan ne ko xanaa sa yàlla ji fi mu nekk kawe na wala mu nekk sori na. mën leen déedéet ku leen jige laa. ma woowee ma wuyu leen. kon nañ xam ne suñu borom day koor gi ma yërmandeem ji day kawe lool yaatu lool bari lool jigéen ñu lool tamit. kon nañ ciy profité di ci njëkkante ñu mu jéggal ñu suñu bakkaar yi ndax ñun ñu bari bàkkaar lañu doomu aadama ko bari bàkkaar la. Mm-hmm. ñu profité ci njëkkante ci jéggal ci benn weer fanweeri fan yooyu woor lu mu lay wàññi. fu nit togg mbaxal nga dem añ yi ko yow mii di ma seerante doo woor yow laay waxal. ragalal sa borom taxam bis dana ñëw ñu takk la sang la takk say tànk gas ba mu xóot kenn du la fa fekk ñi nga doon lekk noonu mbaxal yépp ngeen xaxaloo di invité ci ay appartement dem di lekki te dara jutu la nanga nga xalaat ne bis dana ñëw foofee ñu la suul ñooñu nga doon lekkandoon mbaxal ma te dara jut loon nga bañ a woor ñooñu duñ la fa fekk te bu boobaa de malaayika yi nga xam ñoom buñ la suulee ba pare buñ joxee juróom-ñaari jógo ñoom ñoo ñëw di la su fekkee nekkoon ci dëgg wala sa ngëm dëgërul woon te yu baree bari di am fi ni ngëm gu ñàkk dëgër moo koy waral mooy ngëm gu ñàkk dëgër doomu adama bu ngëmam dëgëree dina bëgg yàlla bëgg yàlla goo xam ne nii bu dara xew du sax dana woor waxantuma laa nag bu koor jotee nag waaye ki nga xam nii nag dafa oyof ngëmam dafa oyof bu duggeen ci bàmmeel malaayika ne ko ayna ma rabbuka kan mooy sa borom dana tiit ba doo xam lu muy wax hmm. te am na ñoo xam biir bàmmeel bu leen malaayika yi laajoon kan mooy seen borom duñ duñ leen sax na foo xam ne ni lan moo tax mbindeef di di leen laaj ne leen kan mooy seen borom ndax beneen borom daa am bu bañ nga xam ne dañuy mujj ak ñooñu bu leen malaayika yi gëddee di leen ko laajee sax buñ leen tontoo malaayika dañuy tiit ba dañuy daw ndax ngëm gu diis ci yàlla ak bëgg yàlla ak tawxiid ju dagar ba bu ñu leen tuddoon leen kan mooy seen borom bu ñu leen ñooñu tontoo malaayika yi dañuy tiit ba daw. nag ngir ngëm ngëm gu gu diis mën na lu nekk. Mm-hmm. waaye ñi nga xam seen ngëm dafa woyof ba ñu foowee diine defe ni diine moom ay fo rek la doo julli doo def dara lu diine santaane tey lu ci bëree baree bari su amee ci jamono bi muy événement yi kenn du leen ci jiitu. tissu bu seer nga daw njënd. Mm-hmm. lépp nga daw njënd kon nañ delluwaat suñu xel ci yàlla te xam ne suñu borom day wàcce wuñu fi lu dul ne ñu jaamu ko. Mm-hmm. kon suñu dégg dama doon ubbee loolu ngir loolu lu ma mett la lu ma seetlu ci jamono bi bisimilah. Ah, tey waxtaan yi bëgg naa dugg ci euh, li nga xamante ni jàngoro ju yàgg ak réew mi la jàngoro joo xamante ni nit ñi dem nañ ba jàpp ne euh, nañ ko sax far dëkkaale ngir jafe gi mu jafee faj mais dégg nañ ne yaa ngi ciy faj ay résultats yu am solo nga ciy faral di am ndoxum siti ak hémorroïde. soo gisee bët bu sëriñ ñu ci faral di wax day jàngoro yoo xam nit ñi dañ koo xeeb te muy jàngoro yoo xam ne jenn jàngoro gënu koo mag te mën na lay dal ngay añ di reer di ndékki di kaf di tëddëkal jóg dara fekk ni wéroo ndax moom hémorroïde moom ak ndoxum siti day jàngoro yoo xam ne ñi nga gis jamono bi sax dafa neex a faj ndax jamono bi comme lekk yi bariwut noonu te koor dafa bokk ci liy faj jëmmi koor rek day faj fi mu nekk nii fi koy bañ a def sax dañoo ak a baax woyof gi ngay woyof sa deret set gi mi set ak ni ngay wéree bu dul koor mënuloo am loolu parce que lekk yi day day soyante mais gis nga bu dul koor ndékki añ reer diggante bu lekk yi dañuy jigante te am na ñoo seen machine baaxul mais jàngoro yooyu jàngoro ju bon joo xam ne nii waxtu wu dikkee leen nit da nga gis koo xam fi mu nekk nii maanaam mën naa xëy bu ndekkee maanaam tey bu ndogoon bu mu ko doon sàcc comme koor lañ nekk bu dogee ba pare lekk taan ma lekk mburu yooyu du mën a lekkaat wala mu dina yëy si ngom lu ne dina ko def ngir bëgg di seere parce que biir bi dafay gonflé. dafay am air. ngelaw lu tàng lu di nekk ci biir bi tamit da ngay gis koo xamante ni mën naa hmm. hmm. da ngay gis ñoo xam ne ay jigéen la doon. Hmm. ñoo xam ne ni fi ne da gis dañu am xottu biir seen biir dina dina rek rëy. te fekk ne hémorroïde interne moo leen dal maanaam ñi xam ne dañu amee euh, hémorroïde boo xam dafay nekk ci biir boobu ñi xam ne am hémorroïde boo xam dafay nekk ci biir di am picc wala bu ñuy dem toilette muy sañee boobu mooy bi gën a metti mooy bi gën a danger tamit mm-hmm. bu gën a bu gaaw a rey nit a ngi noonu nag mm-hmm. hémorroïde boobu am picc nga xam ne di génn deret mm-hmm. gaaw a fi ne bari na koy gis mu jékki-jékki xëy rek faatu ñu naan pourtant lii la woon pourtant dara jotu ko nee tension woon fekk loolu kese moo ko daloon mais xamu ko woon wala faju ko woon wala boog ñun nag garab yi ñu ciy yi ñu ciy joxe di ko faj juróom-ñaari fan di ko romb. sept jours lañ koy faj. mooy moo xam ndoxam siti dalaa jàpp ba sa yaram wi di tàng foo toll. Hmm. wala boo sangoo foo toll da ngay sa yaram day génne ay heure wala foo tollu sa baaraam yi diggante baaraam yi dafay tooy di xeeñ wala am na ci ñoo xam ne nii bu nu bu nu duñu am appétit mooy bu ñu añee daanaka duñ bëgg reer bu ñu ndekkee daanaka duñ bëgg añ am ci ñeneen ñoo xam seen suufu tàng mooy tàng lu sedd sedd ñëw bu ñu jii da ngay seen tàng dañ koy génne gis ñoo xam ne nii des fois dañuy jékki jékki ñaq tooy xib te fi ñu nekk dafa sedd gis ñoo xam ne ni fi ne nii seen diggante yii pooj yi mooy wokkatu gis ñoo xam ne nii dafay jàpp seen digg yi muy metti am na ñoo xam ne sëgg mënuñu ko ji julli am ñoo seen articulation yi lay jàpp am na ci ñoo xam ne nii seen wëq yi lay jàpp maanaam seen koste nii am ñoo xam ne dafay dem ba day delloo seen awre di ko tuutal am na ci ñoo xam ne dafay dem ba di leen tëleloo moo duñu duñu am envie ci soxna yi wala ñu ci amee envie tamit duñ fa mën a yàgg wala ñu demee benn yoon mënuñoo ñaareel te góor waaw te mag ñi daan yoo xam góor bu dëgëree dëgg dëgg dëgg war naa dem ñaari yoon ci benn guddi wala ñetti yoon ci soxnaam nga gis ñoo xam kon bu ñu demee benn yoon duñ bëgg a demaat te dem biñ ci demee duñ fa yàgg am ñoo xamante maanaam seen man yi la dem ba yàq ko muy tàngoor woowu muy siti bi siti bi damay faral di wax ne maanaam jëmmi deret ji lay topp ak sédit yi dañuy gis ñoo dem ba yàq seen man yu maanaam man yu bu génnoon te day mel na buy buñ jàmb noonu rek du am benn ferñeent dara du ci nekk gis ñoo xam ni tamit seen bu dee jigéen nañ des fois tam ku am ñu sëy lu yàgg amuñu doom siti donc moo leen jàpp des fu ñu dem ñaa ne ay rab la da ngeen am rab nangam nangam des fois ku jigéen gi dina amee siti yow ku góor ki amoo ngay def saa yoo jaxasoog moom lii nekkoon ci biir li jóge ci yow di dem ci moom day génnaat parce que tàngoor bu loolu duggee a a nekk parce que jigéen ñi yàgg day metti mooy seen njëlbeenu sëy mën naa neex tuuti ñu am tuuti livre bien mooy ndox wadd yu moom mooy ndox mi njëkk a génn mais buñ say tuutee ndox moom day wow li des sëy bi yëpp dañuy sonn fekk cité leen ko def kon jàngoro joo xam ne nii maanaam dafa mëtt a xeeb te ñu bari daf leen daal nee naa la fi mu tàmbalee rek mooy nga xëy rek ñaari fan rek demoo toilette loolu baaxut nga gis ñoo xam seen biir bu ñu toogee da leen di yërëm da nga dégg muy yuuxu ko surtout koor gi sax nga leen di gën a yërëm buñ xësee xiif rek jeex na bi yuuxu rek di yuux di gis ñoo xam seen biir bi day am air ba nga ñii dañoo lekk fekk lekkuñ dara. gis ñoo xam ne nii maanaam da leen di def xeet yi maanaam tayel yaram yaram boo xam ne day yëg-yëg mel ne dañ laa sotti wala nga yeewu di sa yaram bi bañ. da nga naa ay rab la wala nangam yu ci bëree bëri doon rab. moo tax yu ci bëree bare bëri ci jàngoro yooyu noonu dañ koy xeeb parce que baat bee ndaw loolu daal man dama siti. man de siti may def nii fekk mi ngi def sa yaram bi loo xam ne fii da nga gis koo xam ne nii 45 ans wala wala 35 ans. néew kattan ba mel na ko am 70 ans waxuma néew kattanu gis ñoo xam ne mënuñoo daw benn 1 ñoo xam bu te pourtant cité rek a ko que la jàpp. nga gis xam ne ñu te maanaam at yu ndaw la ñu am la ñu doon. Mm-hmm. mais dañu am duñ mënuñoo yëkkati dara lu diis. amuñu kattan. da mm-hmm. ngay gis ñoo ko yëkkati. te seen soxna loolu ndaw lay doon des mais duñ ko mën a parce que seen sëriñ yi la yàq amatuñ kàttan des fois dañuy gis koo xam ku ponkal lay doon mais du am benn njariñ parce que si dee nekk ci yaram wi di travail séddi di gis koo xam ne lu ndaw lay doon mais dafa wér dara jotu ko mën naa attan loo xam ne doo ko attan kon moo tax mu ne siti dana jàpp nit ba mu mel ne ko am 70 ans te fekk 35 ans am wala 30 ans parce que dinaa xam suñu suñu mag ñi dañoo fonkoon garab daan faju fi ne ni garab xam naa lu sax dañ ñëw ci ci ñuy wax sunguf ak alxuraan ak nangam nangam. di ko dafa dugg parce que ñu bëri dañuy wax naan euh, alxuraan a gën a gaaw sunguf ñenn ñi naan sunguf moo gën a gaaw alxuraan. parce que suñu mag ñi dañoo fonkoon ñaar yëpp parce que ñaar yëpp yàllaa leen wàcc. xam nga garab defarul boppam. garab xëyul xëy sax fi. waxoon naa leen ne leen euh, euh, jëmmi garab cosaan li fu mu tàmbali ko. moo yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam ci mujjug dundam. bi mu nekkee ci minbar bi mu doon jaamoo yàlla day def saa yu xëyee sax fi wetam. mu laaj Seydina Jibril ko lii lu mu kon cosaanu garab mi ngi tàmbalee ci yonent yàlla Suleymaan garab yi di ko ñëwal waaye saa yu xëy de laaj Jibril alayhi salaam ne ko garab gi lii lan la. mu ne ko sa borom dinañ lii garab sangam la nangam nangam lay faj. nangam la tudd. soo ko defee garab yi faj gi ñuy faj. waaw noonu la alxuraan tamit di faje am ci garab yoo xam ne dañ koy boole ak alxuraan am ci garab yoo xam ni moom rek mën naa dem. am ci garab yoo xam ni ci wàllu ubbi ku lay dox. fi mu bëggee suñu mbokk xam garab. mooy garab lu ëpp ci Souleymane bi mu ko doon wax ak Jibril lu ëpp jinne yi ñoo ko doon déglu parce que Souleymane dafa baroon ay jinne bu masaan di laaj Jibril alayhi salaam lu ci ëpp bu ko masaan wax ak Jibril ngelaw li da koy yóbbu ci jinne yi moo tax boo gisee pël yi bu nekkee ci àll bi ak suñu mag di yendu ci tool yi dañ daan tëdd ci genn ron garab jinne fekk la fa ne la pëkk pëkk ne la garab gii day faj nangam wala wala xob yi day faj nangam wala xas mi de boo ko booleeg nangam day faj nangam moo tax suñu mag ñi daawuñ feebar dara daawu woon jot hôpital yii bi mu xewee yàggul bu année quatre-vingt yi boo ko arrière tuuti mag ñi daawuñu dem ci hôpital sunu yaay ci biir néeg yi lañ doon amee doom te boobu bu ñu masaan ëmb am na garab yi ñuy jël mais ñun dañoo dem ba ko faj bari ko defee jàngoro jooju noonu waxtu woo xamee garab yi koy faj faj ko dafa yomb. léegi su ko defee nag léegi da nga daan gis garab sàngam ñu ne bokk boole ak alxuraan day faj nangam. mais ci nit ñi tamit boo gisee alxuraan am ci ñum gaaw am ci ñum gaawul. nit ñi am ñoo xam ne ñoo ceddoo maanaam dañoo sori tuuti yàlla ba pare tamit dañoo sobewu tamit. kooku bu fekkee dafa sobewu yow mi koy seet da ngay xam rawaanam lan la. parce que rawaan yi am na ñoo xam seen rawaan dafa ceddoo. mooy boo dee seen i maam tuuti rek amaana sax du ñu ay jullit wala amaana sax te xamuñu woon ñu seet noonu. léegi kooku pour nga jox ko alxuraan mu gaaw a jàpp dafay jafe des fois. mais loolu kii xam sayxul asraar bi xam dëgg-dëgg xel mu nujoom. maanaam xam-xamu fëlëg xam kii kat bidéom nan la fu mu taxawee. ban bis la judd tam bis yi jeexital. am ki judd mercredi bokk ci ki judd vendredi. ay ay jeexital. ki judd vendredi bokk ci ki judd lundi ab jeexital jeexital. ba ci xanaa xam na bis yoo xam boo ko juddee da ngay gàtt fan. Eh, <coughs> doo gudd fan. am na bis yoo xam boo ko juddee say mbir day dëgër

ndimbali ñi xam sunguf xam nañ ko. ndimbali dañuy wax ne boo koy wuti sax yow yow mi koy wuti. da ngay sañse ba jekk. xeeñ lu neex bu dee am nga oto nga ko. soo àggee tamit lenn ci ay béyee nga koy jënde pour mën a gi. pour mën a ñëw dëbb ko def ko sunguf boo koy dëbb tamit gone yoo xam ne nii. xamaguñ dara mooy bu dee jigéen la motagut gis mbaax. bu dee góor a tamit kasaalika. gisagut euh, li góor di gis <coughs> pour mën am soxna léegi yooyu ñooñu nga koy dëbbaloo. sunguf fi boo pare wax nañ ne ku ne fa fa fa nam la fekkoon noonu la lay dimbalee. bu fekkee dalaa fekkoon nga ñàkk lool dalay lay fexe ba jël li ci ñàkk googu. su fekkee tam dalaa fekkoon nga am lool lay fexe ba nga gën a am. ci tamit <coughs> teg ci tamit dafa am yeneen sunguf yoo xam ne tamit. ci cat rek lay dox. te xeeti sangar yooyu boo xam ne moom am na yoo xam ba ñu duus ba ñu dara. comme suñu mbokk yi Modou Modou des fois nga jox ko nit sangat mu ne man sëñ bi de kaw terrasse boobu day sedd lool wala mun ne man sëñ fu ma ko sangoo te xeeti sangar yooyu des du bañ duus te itam ni ku sangat yu yàgg tamit sunguf dafa gaaw. dafa gaaw ci koo xam su nga fay mbiram. mais am na koo xam ne ni alxuraan mooy mbiram tam noonu la alxuraan gaawee ci moom. Mm-hmm. comprendre nga kon ci tabixa ila ak nit ñi. moo tax bu ma gisee kii naan non alxuraan gën a gaaw non déedéet. gàtt xam-xam la loolu waaye ñi am xam-xam. ci asraar xam nañ nit ñi ku nekk loo ko war a sange. loolu lépp seet moo koy génne. moo ak seet gi moo koy génne mooy sama seet googu nga xam ne nii dama koy faral di seet. Mhm. moo tax su ma seetalee nii dinaa la kat yow kat lii mooy sa mbir. Mhm. su fekkee da ngaa toog lu yàgg say mbir dëgër wala ngay lijjanti dara comme surtout waxoon naa ko ne 2022 bii. Mhm. at mu neex a ñaanal nit la moo xam képp ku ci ubbikuut bala nga ubbikuwaat dina yàgg. ndax at rawaan bi dafa bari sutura rawaan dafa neex a ubbi ko. Mm-hmm. du ci lañ am kaan bi. nañ dem ba ci kanam yeneen xéwal dina ñëwaat Sénégal. xam nga kon 2022 bi ku ci góor góorlu. Mm-hmm. waaye nag des fois da nga gis koo xam day rab yu bon rab yooyu nag ñoo koy teree ñaan la. da ngay kenn de mu wax ba convaincre la la ah, kii bu ca dem nangam ak nangam lii kat laa kërëb kërëb fexe ba xañ na ko. parce que rab bi moo lay soxre des fois. dinaa ko wax fii sama vidéo bi jaar man la yow mii ma di ma seetaan nga ne sama vidéo mu ma sa seetaan te lii may wax nii mu ci yow waaye sa rab bi nga àndal des mooy soxor moo lay soxore parce rab ni mën a liggéey nit jàpp ko noonu la rab mën a liggéey tamit ba jàppale ki am ñoo jàpp ak ku cat jàpp ak kuñ liggéey ñett dañoo nuroo lool des nit rab jàpp ko rek sëriñ bu mu demoon ko dañ laa liggéey fekk kenn liggéey ko rab doon ko bu fa demee ci ku xam wàllu rab bu ko fajaree day wér. gis koo xam des fois cat rek ko jàpp. mbirum yëpp cat a ko yàq lu mu dugg ci yàq ko. Mm-hmm. cat dañ ko xeeb moom itam lu doy waar la. da maa ngi di wax ne bu ku ci mucc amul. da ngay seetlu ne man la suñu mën cat koy sangu de mais ba léegi dina man la cat dafa mel ni karaw. Mm-hmm. mën nga ko wat ba mu set wicc boo toogee quelque temps mu ñëwaat. Ah. mais nag musibam cat nag ci la ñuy muslu. maanaam musibam cat mooy maa day taal ñi cat di def ni ñu jënd oto bu rafet xëy accident ci ñu takk jabar ju rafet xëy faatu ba ko fi xeeti musibay cat yooyu loolu tax ñuy sangatu cat ci musiba yooyu waaye cat kenn mënu sa bi yére sa waay yére bi rafet na yooyu cat ba bari nag moo lay indil musibam cat wala xanaa billah kon loolu tax ñuy sa ndabul cat amul benn bis boo xam nit war a taxee te dugg ci damay fa di wax ne li gën a gàtt xam-xam yow ñu ngeen a siiw rek ñu jox la sa sangatu juróom-ñaari fan rek ba nga jeexal ko rek ba ne alhamdulilah nit foo toll da ngaa war di sangatu di defar sa yaram mm-hmm. kon sungu fi tey ji bu ñu ci doon wax du jeex am na ci xam ne day wax ci wàllu cat ko tax a loo xam ci wàllu rab rek ko tax a jóg am na garab yoo xam rab rek ko tax a jóg mm-hmm. fi sump mi nga gis nii fi ne yàlla ku yéeme la garab goo gis mu taxaw mu taxaw ci kaw suuf rek mm-hmm. am na ba ci nexmaa mii nga xam moo bari suñu dëkk bi sax ñaa nga amul njariñ ak bari njariñ nexmaa rek noonu la bari njariñ ak yeneen i garab yoo xam ne wërsëg rek ko tax a jóg. boo xamee na nga koy wutee ak la nga koy boole. am na ci yenn yoo xam ne jërëjëf boole dara bu paasee na nga koy na nga koy wutee moom. ak jat yaa ngi cey def bu paasee loolu jërëjëf defaat dara. xanaa waxtu woo na fa mu fekk nit kooku bu tëjoo mën na koo tijji bu fekkee moom moom mbiram wàllu sunguf la mbéy koo xam mbiram wàllu alxuraan tamit fu nga ko fekk mu tëj mën a dara mu dëgg tamit mën a décanté loolu mooy masalan ki doon xam ne wut ay kayit. <clears throat> mënu ko am mu dugal ko ba sonn wala mu dugal ko ba pare gaa yi téye ko bañ ko tontu. te da nga xam ne nag loolu ku kayit képp ku ko dugal te ñaan lu woo ci. na nga xam ne du yomb ndax xam la moo tax. Mm-hmm. tubaab yi bi ñu paree ci Covid bi. daf leen a xaw a laal tuuti. dafa xaw a laal seen réew yi ba bëgguñu muur muur yi ñibbisi. Mm-hmm. parce bu ñibbisee li ñor ko xaalis bi nii dañ ko indi. Mm-hmm. te bu ñu dañ ko jëfandikoo fii seen réew dëj leen ab diir. doog leen joxaat kayit yi moo tax fi ñu ko dugal kayit boo amul ñaan dëgg-dëgg bi doo ci jot. surtout que ñoom ñoo ko ñoo ñoo ñoo ko pour def ko pour mm. ku ci jeexal kayit rek boo demee boo ko joxaatee dañ naa la wax rek bàyyi ko noonu. Mm. mais mën nañ laa bañ a tontu kon faaw dañ ci ñaan lu seetlu ko xam saraxi kayit yi génne ko ñaan lu ci. Mm. su ko defee loolu mën naa yomb. bari na ñu wax ba ñu dugalee seen kayit yàgg na waaye kenn faalewu leen. kon doomu aadama yi nga xam mooy ay gàllankooram dafa bari. parce que doomu aadama feeg mi ci kaw suuf rek lu bari dafa taxaw temm ci yàqal ko. kon moom moom moo war a góorgóorluwaat nag ci boppam ndax jinne yi dañoo taxaw pour yàqal la. seytaan yi dañoo taxaw pour yàqal la ak noon yi tamit. su ko defee itam am na xeeti ñaan yoo xam wala xeeti yoo xam wala xeeti gàllaaj yoo xam ku ko def sàpp noonu du mën ci yow dara. lu mu la jéemal jéemal itam rek nga yéem ko. te waxtu bu lay jéemal moom mooy dellu ginnaaw yow ngay gën a yéem ci kaw. loolu mag ñi dañ ko amoon. mag ñi dañoo amoon ay galaaj hmm. mag ñi dañoo fonkoon ñaan yàlla dañ daan naan di sangu di burusu lépp lañ daan def parce que xam ne doomu aadama li ko sox daa bari da nga naan mag ñoo xam bala ñoo génn si munu kër daañu seex daañ guux saafara def di hmm. a génn xamoo lu tax ñu def loolu hmm. nga gis mag ñoo xam ne nii daana yor ñeenti soxna ci génn kër ak 40 doom wala 30 nangam doom ndax sa soxna lu mu nga saan gàtt gàtt bu njëkk xam nga léegi la njur mi ndaw ni mais bu njëkk da nga koo xam ne am fukki doom jigéen joo xam ne fukki doom yow nga am ñeent soxla ku ne jur fukki doom loolu ñaata doom la ñeent fukki doom wala lu ko ëpp des fois mu dañ ko doon am kenn du faatu ñaare bi mooy kër gi itam kenn du coowaloo léegi ñun ñi ko ci yor ñaari jabar sax faaw ñaari appartement ngay wuti te sa doole matéwu ko li ngay fay boo xoolee un million bu bu bu passé tout lay doon nga wut ci wut ñaari appartement bëgg ci wut ñaari dund bëgg ci wut ñaari xarit tabaski bëgg ci wut ba mu jeex mag ñi dañ daan boolee jigéen ñëpp ci génn kër xaddu damm kenn du coow kuy coow sax bañ ne la hee toj teg baat loolu da nga yaakaar ak neen la woon nit ak i noppam nga indi ko ci kër boo ko bëgg ne boo ko waxee ne ko noppil mu noppi soo ko ne ko demal mu dem boo ko ne toogal mu toog loolu loo xam ne nii suñu maam yi ñoo ko bàyyi woon muy lu yenn yi nekk ci alquran yenn yi nekk ci ci ci ci garab yi yeneen yi nekk ci ay xam yoo xam ne dañu koy ilham mu dikkal la yenn yi nekk ci mbiri jinne yi la ko jox wala yeneen ak yeneen waaye lu ci mën di doon rek mooy lépp loo xam ne ni waaye neenal na ko man naa man naa mën naa yéex a avancé da ngay gis wax ba mu day liggéey kenn xamul kañ la waaye mënut a fexe ba taxawal dara te pourtant mi ngi fayee ko mi ngi am xaalis lépp mais mënu leen maanaam yére bu baax sax pour mu am ko problème la baax sax pour mu am ko na am na lu muy àndal mu koy lu koy yàqal te xamu ko gis ñoo xam raba leen jàpp ay jigéen lañ ñoo amee coro rab ñoo am rab kon mu ñëw sëy góor gu ñëw dem fu ñu toll dañuy énervé dañuy bëgg a réservé wu nit ñi toog ñoom kese naqari deret gis góor ñoo xam même chose dañuy dem ba rab di leen def ñuy fooyee seen bopp parce que bu leen rab bi dikkalee bëgg a sëy ak ñoom. Hmm. mën na leen fooyee loolu seen bopp ñu fooyee seen bopp dem ba seen góor a yëpp am mais mënuñu ko. Hmm. fu ñu toll dañuy isolé nit ñi hmm. jàmm foo toll. te kenn du def dara. gis ñoo xam bërëbu liggéeykaay bu ñu dem dañ leen di bañ te duñ xam lan la. fekk rab bi nga xam ne mooy demee noonu. nes tuuti nga bàyyi ci bërëb boobu demaat ci beneen bërëb fu ne nga dem fa te doo réaliser dara tàmbali lii tey ba ñu ma ngay dem njëlbeen gi neex lool nga xëy xëy mu yàquwaat yooyu cat mën na ko def nit mais rab mën na ko def nit mais ko def nit mais dinaa faral di wax ne liggéey nit boo gis am na ko ndeyam boote waaye rab ak cat moo mënul kenn te ñi ci mucc bariwul kon loolu doomu aadama dafa war a dellu ci boppam bañ tamit di nay ci boppam nañu soo xam naa moom man de sama ab sëriñ di lekk sama dërëm moom bala ma koo lekk xanaa jox ko sama yaay mu ñaan ah kañ sa yaay fexeel mu gërëm la sa baay fexeel mu gërëm la. ndax dafa am loo xam ne ci ñoom rek la mën a soqi ko waaye nag bu noppee nag barke nag moom loolu sëriñ a koy joxe. barke loolu da nga koy dem sàkku ko. beneen bi ci toppit mooy ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax xam naa sax foofu laay tëjee. ndax tey jii sax mën naa sax daanaka waxtaan bi sax indiwu ma woon waaye diine ma gënoon a ñor mm-hmm. nañ fonkaat baax suñu diine ji. Mm-hmm. islaam mooy lépp. Mm-hmm. islaam la yàlla indi ci ñun jox ko kan yonent salaam muy ki yonent bi gën ci yonent yi xam ne tamit islaam lu yàgg la fi islaam nekkul ne si naa man moo ko fi indi déedéet aadama islaam la yoroon xeesa islaam la yoroon xeesa moom la suñu mbokk chrétien di wax xeesu xeesu boo ko bindee bind xeesa ñoo bokk neen même même nu ñu leen di bindee ci arab masque accent yi rek ñooy wutee boo bindee xeesu moom noonu nga bindee Isa. kon problème mu prononciation la mais même même même araf la. Isa moomu islam la yoroon. Ibrahima islam la yoroon ñoom ñëpp islam la moo tax alxuraan day wax ne laa nufarriqu ne bu leen leen tàqale ñoom yonent yi de. benn lañ te na ngeen xam ne ñoom ñëpp ay julli lañ. daan nañ na ngeen xam ne nag islam moomu nag képp ku ko fa indiwut ëllëg yow nag xiyam perte. kon nañ xam ne. ak réeroo loolu xale di wax des fois naan am na ci mm-hmm. waaye ak réeroo moo ci am rek waaye lépp lislaam la mm-hmm. Souleymane moom la yoroon Daawud alayhi salaam moom la yoroon ñoom ñëpp moom la yoroon nañ xam ne ne diine jooju nag nañ ci góorgóorlu baax a baax a lu mm-hmm. mukk luñ doonul da gis xam ne yow ab julli doon waaye xam julli la xam lu mu doon loolu lu mot a bàyyi xel la beneen ba ci toppit mooy ñu xam ne dee gi mi ngi ñëw yàggul kenn du fi dund téeméeraat kenn du fi dund téeméeraat nañ xam ne wutum alal mi naam baax naag lépp waaye ni ko bu ñu def lu xaraam bu ñu def sacrifice bu ñu def leer parce que gis nga suñu borom mën na laa nekkee ci xat-xat ak jafe-jafe ba nga ne mën a yàlla dafa ma fàtte benn at suñ borom mën na la ci ubbil wërsëg ba lépp loo bëggoon taxawal nga taxawal ko ci ba nga yaakaar ne man ba ñu ñi sax yaakaar ne yow da ngaa sacrifice wala da ngaa def dara fekk mm-hmm. wërsëg wu ubbi ko dong la man tax day leen lu ci lu lew day leen saraxe ci lu lew day leen sangoo lu lew yéen ñi ay julli leen sanga alxuraan ak lépp lu set lu sell waaye buñ leen dugal mukk ci ay yoo xam ne lu ànd ak mbirum xërëm la wala mbirum jinne lu bon loo xam ne di mbirum jullit bu leen ko def soo ko defee bis bi ngeen feebaree feebaru dee ba tëdd seen i kaw laal ci ngeen xam ne àdduna du tus war la leen di def ngeen faatu nag te lu ngeen daj ci sukuraat bu fekkee ne la dem aljana looy li ngeen dajaate gën a metti ba ba bis penc ba mbugalu mbàmmeel wala yaasu billah leneen la leen wala yaasu billah kon alal ji bu mu leen jaral mukk ngeen di tàlli seen diine mukk si àdduna bu leen jàmm bu leen jàmm mukk seytaan ndax seytaane mii seenum noonu la loolu alxuraan seytaan seenum noonu la te itam mooy yi mu yoon rek oto yu rafet yi kër yo man waa da nga ci war a am defal nga si defal lii sa gars yi gis nga sa morom yi am nañ ko nangam ak nangam ba nga jaay sa diine mm-hmm. te xamoo bis bi nga ko am ci nga war a def soog accident am déet faatu wala yaas billah kon in uridu ila islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu acoo dégg ngeen waxtaan wu am solo wi sëriñ Ahma Lo Ndaam waxtaan mu nekk waxtaan woo xamante ni lépp njariñ la nekk waxtaan woo xamante ni lépp ngëneel la mbokk yi numéro téléphone sëriñ bi mu ngi noonu affiché ci suuf ecran bi képp koo xamante ni woo nga ko rek dinga ko jot mbokk yi doon topp di ñu suivre ci MPROD yàlla ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad Rasulullah